salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum ñi ne ci réew mi ak ñi ne bitim réew di ñu setaan di nuyu it ñi toog fii ci table ji ak man di rafetlu teewaayu presse bi Malal wax na ko léegi fàttali ko dafay baax soo leen xoolee balcon bi ak mbedd mi waa koñ bi mun nañ fàttaliku 2011 diggante ñaari tour yi 2012 bi fi Macky Sall ñëwee di ndokkeel si Y'en waaye itam di ko wax pour mu dimbali ko gunge ko jàppale ko ci pour mu mun a gagné Abdoulaye Wade au deuxième tour. di fàttali rek ne boobu dañ ko ne woon ñun suñu logique la ñuy topp parce que kuy xeex Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade bu ñëwoon deuxième tour ak xeer sax xeer bi la ñuy continuer di ko jàpp kon leeraloon nañ ko ko di wax ne. malal dellusiwaat na ci situation ak condition yi nga xamante ne moom la ñu téye Aliou Sané jàppewuñ ko sax buntu kër Ousmane Sonko en réalité ñu ngi ko jàppee buntu SAMU te ku xam SAMU ak kër Ousmane Sonko di nga xam ne y a minimum six cent mètres de distance biñ ko fa jàppee gis nañ ni ñu ko def dañ ko pamt pamtee ne ko jatan ko comme ni ñu def xarum tabaski sànni ko ci biir pick bi ñëpp a ngi ko gis yàlla vidéo ki tourne partout si net bi yóbbu ko def ay retour de parquet yu bëree bëri jaaba njale loo ko diggante brigade de recherche ak commissariat central ba la kaat ñu indi ko devant le juge bi ñu ko indee ci juge bi juge bi daf ko ne Aliou Sané procureur nee na da nga bokk ci manifestation non autorisée da nga def trouble à l'ordre public da entraver la libre circulation ba pare da nga offensé outragé ay agents assermentés dans l'exercice de leur travail kon dama lay mandat dépôt Aliou Sané na ko non loolu amut dara teguwu ci juge bi ne ko ndax am nga lu ko mën a firndeel mu ne ko mon avocat a les vidéos yi ñeex sama arrestation si la génne vidéo yi wan ko ko bi juge bi xoolee vidéo yi daan na ko effectivement li procureur bi wax sincèrement waroon na ak li ma gis ci vidéo yi kon mënuma la yóbbu mandat dépôt dama lay def liberté provisoire ci saa si ñu bàyyi ko mu dem biñ ko bàyyee mu dem ci la ñu gis ne que procureur bi def na appel bi mu defee appel ci ay fan yu gàtt motul ay vingt jours ñu nangul ko appelam depuis le vingt neuf juillet maanaam ñi ngi def benn épée de Damoclès ci kaw bopp Aliou Sané di xool di di xool nu muy defee ak nu muy doxalee mais damay fàttali rek benn mbir bu gën a graaw pour motiver seen dossier pour charger seen dossier pour teg ko ay tuuma dem nañ ba ne le 2 le 3 ak le le le premier le 2 ak le 3 Aliou moo taal otoom dem ba. fële Kër Massar di sottil essence ay boy pour ñu taal ils sont même allés jusqu'à dire cette bêtise alors que Aliou Sané a été arrêté le 29 ku ñu jàpp le 29 xam naa dañ ko jàpp moom mu tàggu commissaire central ne ko maa ngi génn dem taal sama oto may booy essence ñu taal après guddi dinaa ñëwaat fanaan si pour vous dire à quel point le ridicule ne tue pas dans ce pays pour vous dire à quel point ñii ils sont prêts à n'importe quoi mais nag jàpp Aliou Sané dafay firndeel di mandargaal di wone encore une fois de plus tappale gi nekk ci ginnaaw jàpp yi ngeen def doomu Sénégal yi ndax Aliou Sané à l'unanimité sénégalais boo wax mu ne la nit ku yaru naka nga mënee tiim Aliou Sané di wax ne kii terroriste la naka nga mënee tiim Aliou Sané di wax ne kii dafa doon brutaliser ay policiers ay forces de l'ordre pour xam ku xam la personne sénégalais yii li ñu seetaan ñoom xam nañ Aliou Sané amul lennuy nit ku brutal amul lennuy nit ku indiscipliné au contraire yar la woon doomu aadama yëpp kon li ñu wax tegul ci dara ca la leen neex lañ ko teg li ko wund nag xam nañ ko mooy xàllil péage ñoom seen ay candidature yi ñu fi teg ci pour éliminer toutes les voies dissidentes dans ce pays te loolu mun nekk c'est impossible c'est peine perdue munu leen ñoo noppiloo munu leen fexe ba lañ leen war a wax wala la ñu war a def duñ ko def c'est peine perdu maintenant monde entier lañ jël ñu nekk ay témoins cette conférence de presse li ko li ko wundu bi ci njëkk mooy pour déconstruire li nga xamante ne ñoom moom la ñu teg te dara du ci dëgg pour mën a tuumaal doomu jàmbur téye ko ci kaso bi leneen li mooy pour xamal leen ne ndaw yi Sénégal ils resteront debout parce que malgré les restrictions ci internet bi les restrictions de liberté les interdictions ci ay manifester amul fenn fu doomu Sénégal amee droit nooyi tey ji ci Sénégal gi waaye c'est peine perdue parce que tey la ñu gën a am détermination tey la ñu gën a taxaw tey la ñu gën a pare tey la ñu gën a xeex encore une fois jàpp Aliou Sané du dara lu dul bëgg a la lutte les libertés des gens waaye c'est une peine perdue kon nag di wax sénégalais yëpp ne leen le projet de Macky Sall mooy lan continuer di oppresser les sénégalais justice bi mu koy utiliser def ko yatam mu nekk ku ma am ndey ak ku ma amul ndey muy oppresser les sénégalais xoqatal sénégalais yi def ci régime de la terreur un état policier le Sénégal est devenu une prison à ciel ouvert chaque individu yaa ci kaso bi amul kenn ku ci mucc te loolu waxuma la régression démocratique démocratique mais démocratie amatul ci mim réew ñaawlu nañ ko waaye dinañ continuer le combat ci forme yu ñu xamante ne mooy ferme forme yu ñu suñu constitution may mu nekk ay forme yu légal pour ñu mënee le combat di wax nag ne Aliou Sané dégg nañ ko mi ngi si jàmm dara dalu ko il est super bien portant xeexkat la combattant la di wax ñi ko bëgg ay sympathisants am ak ay mbokkam que ne mi ngi si jàmm il est fort il reste fort te nee na que la lutte continue que le combat continue parce que nag il n'est pas le seul il y mille et quelques détenus aujourd'hui qui sont dans les prisons arrêtés arbitrairement te tegul ci dara kon nag pour honneur pour faire honneur à ces gens-là nous nous devons de continuer le combat incha allah dans la légalité nous nous allons continuer le combat pacifiquement avec lépp lu ñu suñu constitution may pour wan ne dafay yomb lii du jàll ñu baaraloon la lutte à ce régime bi nga xamante ne xoxotal jaay doole tappale parce que nag su fekkee procureur dafa interjeté appel ci décision de juge ça veut dire que état bi ci boppam moom moo bëgg teg tëj Aliou parce que procureur c'est la chancellerie kon ñoom ñoo bëgg jàpp Aliou Sané loolu rek moo am amul leneen ay caaxaan la teguwul ci dara donc loolu laa ci bëggoon a wax pour ay premiers propos xam naa ma jox doyen Mbodj mu sànni ci ay kàddoom euh, bu F24 on vient de recevoir. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette